Sénégal xerawlu leen tuuti ma dellu marsiyaal sang bu yàlla dara jaal fa Bamba ak fa Rasuulullaay ma yonen ba ma dellu man Maalik di marsiyaati xalifatul Seex Bamba si laayaati dinaa ko taarixal li wajhi laahi ak darajay baayam ba doona laay boola taggal marsiya ndax mu may ma ci darajaam gëna li weesu xayma ca yàlla ca sëriñ bi maa ka waaro warkat bu mag ba war na tuubaak daaru Sëriñ Fallilu Sëriñ Fallilu Sëriñ Fallilu Sëriñ Fallilu sëriñ fàlli na ku nekk xam mbaa mooy du jaglu du jaglu te wuutu woon Seex Bamba xalifa du ba toog ya jal ba lu fekk na tey baayam ba ak magam ji weetal na gox yi na seeru jëf jëf ma jooy ko ma siyaal ko wax jalaare dem semal la jëpp foore jëkk laa wax waxi Cheikh Moussa ca marché maam ca gëm na baax ga duniyaa bu dun daylu di yaay leeye xayrul waraa waawaa makka duñ ko jaale waaye waaye la yóbbu ahmadul makiyu dellu si yóbbu ahmadul makiyu du bàyyi su maam kale di xaadimu kale maxdoomu yooye bay jàmbee ko wax ca way waa demu sëriñ Falilu loolaay tas la ku toog palaasam daal di xam ni mbër la ngoonu talaata dafi mbar ma gonte fekk sëriñ ma fendaw ngoonu benn fukki fan ak benn rakaati gàmmu jël na fi mbar moo am xorom ta sàmm adduna war nga nu te war sa bopp te xam naa ni léegi sa bara gi rab adduna war nga nu tawar sa bopp te xam naa ni léegi sa baraag yi rab alarba jee ca Xafsa si jantam ba mel ni jee ca moom sa sin bi samba zikaram booleem lu doon jaal jéere na jëm këram ga ndaw lu biire xel ya gëlëm xel ya gëlëm xol yëpp maase tàng ranxo yeyul di tuuru cër yi ràgg watay ak watiir yi def ay njooxe jëm ci këram yàlla bu mbir yi sooxe muriitëku xaadirëku tijaanoo ñëpp ko jooyo ak sa sultaanu sëriñ falliloo njàqare tàbbi ca xolu fugraasi ngir ak demam xar bi seetal mbir ya njëndem yu mag ya fa àll Tuuba jooy nañu ko ngir xam ni moo di sang baa bisub keroog kawutu tooge jël ba rakam yu maandu tabe ak taaram ba mu ñëw këram taaw ba jox mbir ya waa Mbàkke ñëpp teew di seede mbir ya waa ko Sëriñ Tuubaa waa tuuru keroog dari Seex Mbàkke say fu diine teewe na bi ya jooja waay du cuune nee nañ bisu bu keroog lay xëy di woote waa kër ga bég lool lool ndakate nar na joote wir naa pelek wir naa pelek ku ne na dem ci soxlaam sorsil yu laab di joxante ay salaam bi su keroog dellu na wat luy naanu leeween bii sang moo folil waxa sa garab yi def baal ci diggam ak jumaa jot doy na mag waar bu dara dox fi sa digg ak Seex Bàmba la wax keroog ndekete lëm na biir ba daal ni murid yi ngeen abal ma tuuti laaj laaj koloñ tuuroo ka bu jawaate ba jëlu see ñu fekk mbër mu soonu ni jàll mel ni dafa yëg ab coono dëgg jawoo ñu di gannaaw nañ fa tuuru goyobuy liin sëriñ Fallilo daga daaw mënu ko lim gëm ko doy naag baax sëriñ Fallilu guddik alal ba lañ ko rab fa Tuuba fa penku am di mu sabal baayam ba te kon na gees ga ñu wutaloon yaaram ba def ko ca biir yóbbu ko Tuuba bis ba ma mu dencoon ndindi moo ko gaara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 waa kër Sëriñ Jaafe ak Salaam waa Daaru Muti ñëpp teew malaam ànd ak yeneen am ay maanaa waaye lim day waral ab coono xaban xaritam riwaayam xolam bajee na keroog ngir diggam ak nijaayam su keroog boole mu doon malaaka yàlla yabal na leen ñu waru naaka malaaka jar yaa koy sargal naa ko marhaban xawsul wara di màggal mu xuus ca njëndeef ba yee daaru salaam dëkk rijaal yu mag yaa rabbuna salaam ridwaanu bil ko yulli ya bay xelli misik ba jib gët nga dal di sàll bisub keroog la am fa péccum Tuubaa ginnaaw robam ba ñuy defar baral baa kenn desatul góor ñaa jigéen ña booloo di yuuxu tey weer weeri maa ku wóolu ti sukkara gu ne mel ci zaayir mësula am fa mbàkke ñëpp a ngay ser jegam sëliñ fàllu sunu saadix baaba moo génne tuuba fekk seexi bamba dara du sax ku yabu far wakiir li jaabu yàlla tey nu góor góor dara du sax ku la feeñ fa Tuuba am na ñu naa la booba te moomaat la mbër ma génne ci Tuuba Mbàkke ñëpp aljuma aljuma tey kasu a la takku jundi lillaay der ko mbar may bàkku nee nañ keroog daam dani buñ ko nàmpal fekk jant bi soo buñ ko jox toqantal bisu keroog wax na ni rasulullaay ñëw na fi ngir juddoom gi doona laay inni abdoulaye moom la isa waxoon di mbim jureel ga raw na buusa buur bam defoon bam mën a waxte mi muru moom mën a def keroog sëriñ fàllilu mën a war amul lor بك احتوينا مال نستاخ صلى عليك الأكرم الخلاق ba bis ba dellu see ñu daal di koy ngénte làmp liir bii dana toog ba yaate bu mag ba moo ko tuddee faadilu yor ngeneel ya doon faridun kaamilun cheikh bamba ab du njëm du mooy ni faadilu bam noppi muy maflulu mbaa muy jaayilu baaxam walaay man xam naa ni sëriñ falilu moo di fi yaaram wàllu ndeyam boo ca waa mbusoobe te ay sëriif la ñu bilaa xuyoobe fii doy naa yem fii